ñàkk kaaraange gi ak càcc gi nga xam ne jamono bi moom lañ nemmeeku ci Touba ak Mbacké directeur de la sécurité publique ci nemmeeku gi nga xam ne mu ngi ko doon amal ci dëkk bu sell bi ci fan yi profité nañ ci ngir lancer opération sàmm sunu kaaraange loole ñu amal ko le 20 ak le 21 ci Touba ak Mbacké lépp ngir nasaxal pexe ñi nga xam ne ñoo di defkatu ñaawteef yi. di leen xamal ne rek euh, directeur de la sécurité publique daf fi ñëw. fan yi seet si ñu pour lancer ay opération bu ñu tuddee sàmm suñu kaaraange parce que dañ seetlu ne fan yi euh, diggante Touba ak Mbacké dafa bëri ay attaque ay agression ay cambriolage ci boutique yi ak station yi te mbiru sécurité doon la nga xam ne dafa dafa dafa dafa euh, autorités yi dañ ko jël au sérieux ba tax mu ñëw fi pour lancer opération boobu Euh, lancement la. opération bi nag biñ ko amalee bëri na ñoo xam ne teg nañ leen loxo. ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti nit la ñu interpellé la ñu jàpp ci biir ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti yooyu téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar pour vérification d'identité la juróom yi pour yor euh, neebar maanaam yàmba lañ leen jàppe fukk ak ñaar fukk ak ñett 23 ñaar fukk ak ñett yi mooy ñi màndi di tëdd ci mbedd yi di ci mbedd yi ci mbedd bi juróom-ñett yi pour vagabondage mooy ñi nga xam ne amuñu fu ñu fu ñu amuñu fu ñu tëdd fu ñu fanaan ci biti la ñuy fanaan donc euh, ñeent pour ñi nga xam ne dañuy quinze di màndi ñett pour ñuy dawal oto te yoruñu permis de conduire benn pour sàcc juróom-ñetti pour jeu de hasard maanaam ñiy carte xaalis ci mbedd bi juróom-benn pour nécessité d'enquête ña nga xam ne seeni seeni euh, comportement moo moo suspect donc ñu war a saytu nag seeni yëf ci mbiru contrôle oto yi ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti pièces la ñu jàpp ñu immobiliser juróom fukk ak juróom-ñeenti oto ak fukk ak juróom-benn moto. opération bi nga xam ne nag moom moo di sàmm sunu kaaraange li nga xam ne moo ko tax a jóg. mooy pour population yi nekk ci jàmm am seen jàmm mën a di liggéey di dem di ñëw te kenn du leen euh, seen sàmm seen alal tamit donc ak kaa yi nga xam ne am na fi fan yi passé muy ay agression ak ay violence yu fi am ñu leeral ko ci loolu nag dañ am ay renfort yu jógee dakaar mooy directeur de la police judiciaire ak waa GMI ñoo ñëw pour prêter ñu moi mais forte pour ñu mën a euh, ñoŋal liggéey boobu opération bi nag lancé nañ ko waaye police nee na duñ ci yem dañ koy wéyal ngir gën a yokk li nga xam ne moom moo di kaaraange gi ci dëkk bu sell bi di Touba ngir aar askan wi ci seeni alal ak seen jëmm yi.